اتباع سنة في التراهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يكفي كادو ndigal waaye mu nekk kàddu yu gàtt ñu dalal suñu wëju suñu sëriñ suñu xarit di seen Sidi Ahmed si suñu maam Alxaaji Abdul Aziz si di ko nuyu nuyu am fu mu tàmbalee waaye am fu mu yem di ko ziar ci turu njaboot gi mu fekk si yëpp di bëgg itam jataayam bu baax a baax di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla dafa dogal muy chance bu rëy ci ñun ndax li am solo mooy li ma dégg léegi rawxaan woy ko te Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour waxoon ko waa Pikine muy loo xam ni nga neel mënu ko ëpp kon su yàlla dogalee gàmmu Pikine itte bi ko Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour joxoon ci dundam kenn doy ko ci kudul boppam mu jël ki nga xam ne amul kudul moom di soppeem di xaritam di léppam di sëriñ Abdoulaye Sy Al Amine muy taxawu gàmm bi ci anam bu nekk di ci daj lu nekk bi mu demee bi yëg ni wér na ko wér yàlla ni yaramam mayu ko pour mu teew mu ñett ñett yi fa tabaaraka Allah ba ñëw ci anam boo xam ni ñëpp xam nañu ni sëriñ bi def na ko waaye du lim la bu mu dellu see itam def na lu nekk xool na yëpp mënu ko mu ni daal kenn doyu ci ku sama bopp mu def sëñ Sidi Ahmed ni ko yaa may teewal ca gàmmu mu nekk lu rëy ci ñun ñu fu fekk yëpp maa ko koy wax léegi ci néeg bañ ko ñun chance bu rëy lañu yàlla may tey ndax bu sëriñ bi téléphoné woon rek ni am naa ngànt ñu nangul ko ngàntam te ñu fi teew mu daay moom la wut waaye fonk gàmmu Pikine ak fonk waa Pikine sëriñ Siri gàmmu Ahmadiya la jóge tey bàyyi gàmmu Ahmadiya ngir gàmmu Pikine kon loolu rëy na ci kon ñu ngi wax sëriñ bi ñëw xam fi sa njaboot rek yow yaay kan ci ñun waaye fii ñu baax na ñu ngi lay gërëm ñu ñu ngi lay ñaan yàlla di la jox kàddu yaa xam. suñu njaboot a ngi nii say doom ngi nii say xarit a ngi nii say soppe ngi nii asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilahi alqaili fi muxkami tanzili ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخره والصلاة والسلام ala sayidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiicina mawlana muhammadin rasulillah wa ala aalihi wa asxaabihi wa xulafaaihi wa axbaabihi zawil izzi wal jaah wa radiyallahu عن القرب المكتوم والبرزخ المختوم القرب الرباني والغوث الصمداني صاحب الختم المحمدي مولانا أبا العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله عنه وعن كافة خلفائه الكرام المميزين أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sëñ bi ne gannaaw ba mu sant ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mi ngi nuyu mbokk yi fi nekk ak jigéen mag ak ndaw ne bu leen jàpp nag ne nitu yàlla yi fi nekkoon dañoo dem déedéet ñoo koy ñi ci ba léegi seen lépp di wax seen dara taxaw tabaarakallahu di jottaliku ci sunu sëriñ sëriñ Seex Ahmed Tijaani Chérif radiyallahu taala anhu di nuyu nag mboolem ñi fi nekk góor jigéen mag ak ndaw bàyyiwu kenn ci ndigalu suñu sëriñ suñu kilifa suñu soppe suñu lépp ne ci ndigalu suñu sëriñ suñu soppe di suñu kilifa di suñu lépp moom itam mu wuutu ci xalifa bi Sayid Cheikh Ahmed Tijaani al Maktoum. moom itam mu wuutu ci xalifa bi Sayid Cheikh Ahmed Tijaani al Maktoum. waaye wuutu ci rakkam yëpp ak njabootu maamam yëpp ak jullit ñëpp. waaye nag wuutu ci rakkam ak njabootu maamam yëpp ak muy Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. bu sëriñ Babacar si bu Cheikh Alhaji nee bu sëriñ Babacar si bu maam Cheikh Alhaji Malick radiyallahu anhu. mbokk yi di leen ciy laaf ne porte parole kër maamam. léeg-léeg léegi ñu laaf ci ne mooy porte parole kër maamam. waaye man dama naan mooy porte parole lépp lu baax te sell te lépp lu baax te sell te jub. xam nañu bu wér ne. ne xam nañ bu wér ne. ñoom dañu baax. ne te ñoom dañu baax. dañu yiw. dañu yiw. dañu sell. dañu sell. fonk nit. fonk njaboot. fonk njaboot. waaye ku fi teew xam na ni. waaye képp ku fi teew xam na ni. mënuñu wuutu Serigne Abdoul Aziz. ne ku neex na wuutu. ñoom mat nañu li ñu doon ci ñun. ñoom nag mat nañu li ñu doon ci ñun. ñun ñoo matul li ñu doon ci ñoom. ñun kay ñoo matul li ñu doon ci ñoom. yàlla mi léppam mat yàlla nañu yàlla wuutu ci ñoom. yebal ñu fi. ne Serigne Abdou yebal ko fi Maroc. Euh, ci gàttal daal. ne ci gàttal daal. li ñu ndar képp tey dafa bari ne li ko ndar képp tey dafa bari ñëw fekk ci xalifa bi Sidi Mouhamadul Mansour. ne ñëw fekk ci xalifa bi Seyid Mouhamadul Mansour. radiyallahu anhu. yal na yàlla beesal ngërëmam. wa qaddasa ruuxahu wa tayyaba sara. yal na yàlla sellal ruuxam te yaatal dariixam dool yërmandeem wallahi na leen wóor ni Serigne Mansour a ngi ñun ci tànt bi. nee nañu wóor ne Serigne Mansour mi ngi ñun ci biir tànt bi. ku ko amoon te am nga di dëgg te sell tey nga ko gën a amoon te am jii nga gën a am loolu. ndax yàlla du sancaan. ndax ne yàlla du sancaan. yàlla ku baax la. yee ku baax la. cëram ci wàllu yàlla. nee cëru Serigne Mansour ci wàllu yàlla. kenn xamu ko ku dul yàlla. nee kenn xamul cër boobu ne ku dul yàlla. luñ ko mën a tuddee ëpp na loolu. lépp luñ ko mën a ko mën a séentu romb na foofu. nee fu ñu koy séentoo yi romb na foofu. luñ ko mën a jorte gën na kawe foofu. nee luñ ko gën a jorte gën naa kawe foofu. te cër yaa ngay law rek di dem. nee te cër yaa ngay law rek di dem. ndax yàlla matadi na. moo ndax yàlla matadi na déedéet. ndax yàlla daraam manqué na. ndax yàlla daraam na du manqué. loolu bokkul min awsaafihi subhanahu wa taala. loolu bépp bokkul ci melooy suñu borom subhanahu wa te ku ko waayoo mu waayoo la. te yàlla na ku ko waayoo it mu waayoo la. te ku man waayam la. te yàlla ku man waayam la. ñu yëkkati nuyoo yu tedd. nee ñu yëkkati nuyoo yu tedd. ziyaar yu tedd. ànd ak ziyaar yu tedd. ndokkeel yu mag. ànd ak ndokkeel yu mag. teg ko ci loxo suñu sëriñ. nee teg ko ci loxo suñu sëriñ. sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Mouhamadinil Mansour bu sëriñ Babacar bu Cheikh Alhaaji Malick ñu teg ko ci loxo suñu sëriñ sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane bu sëriñ Mansour bu sëriñ Babacar si bu Cheikh Mouhamad Cheikh Alhaaji Malick radiyallahu anhu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax. nee sëriñ Cheikh nee na ñu ngi lay nuyu bu baax. di la ziyaara bu baax. ñu ngi lay ziyaara bu baax. budul woon ñi ni sax. nee budul woon ñi sax. sang nga ci ñun sëriñ nga ci ñun kaar kaar ndax sa jikko. ndax sa jikko. te jikko mooy nit. nee te jikko nag mooy nit. mooy tax nit nite. nee jikko mooy tax nit nite. yàlla seddal na yonentam bu ne ci alquraanul karim. yàlla seedeel na yonentam bu nekk ci alquraanul karim. waaye bi mu agsee ci jaamam di yonentam di soppeem di léppam muy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee bi mu agsee ci jaamam di soppeem di léppam di seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën ci lépp lu yàlla amal mu gën ci lépp lu yàlla amal ba yàlla wax ni bu dul woon ak sallallahu alayhi wa sallam man seen borom duma amal dara. ba yàlla wax ne bu woon ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man yàlla duma amal dara. kon kay xam ngeen ni kii cëram rëy na. kon kay ñun war nañu xam ne kon cëru yonent bi sallallahu alayhi wa def témoignage ci yonent bi lan la wax. waaye bi yàlla di def témoignage ci yonent lan la wax. koo xamante ni sa lépp ak fépp moo gën ci lépp gën ci fépp. koo xam ne sa lépp ak sa fépp moo gën ci lépp ak ci fépp. yàlla bàyyi na fa askan wa. yàlla bàyyi fa askan. bàyyi fa meen ba. yàlla bàyyi fa meen. bàyyi fa geño ga. yàlla bàyyi fa wàllu geño. xool sallallahu alayhi wa sallam biir ak biti. xool sallallahu biir ak biti. te kenn xamu ko ku dul yàlla. te nag kenn xamul sallallahu yàlla. ne cas jikko ja. yàlla ne cas jikko ja. wax ko ca la mu ko cay wax. ca la mu ko ca jikko ja. moo tax sallallahu alayhi wa wax ni innama bu'istu li utammima makarim al axlaaq. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dañu maa yónni ngir ma mottali seen jikko yu tedd yi. sittuna Aïcha radiyallahu anha bañ ko laajee lan moo doon kan moo doon yonent bi lu doon jikkoom. sittuna Aïcha radiyallahu anha dañ bi kan moo doon moom lan moo doon jikkoom. am na ñu ne ci riwaayé bi alquran la ju daan dox ci kaw suuf. am na ñu wax ci riwaayé am ñu ne dafa ni kaana xuluquhu alquran am ñu ne itam daf ne jikko ja dëgg dëgg dëgg daal soo ko bëggee xam jikkoy muhammad demal ci alquran mu la alquran wax rek mu la ñaar yépp mën na ne wala ñaar yépp nag mën na ne ndax alquran ci moom la ko yàlla wàcc ndax alquran ci moom sayidina muhammad la ko yàlla wàcc waaye ànd ak loolu yépp waaye ànd ak yooyu yépp nag bi yàlla di wax ak moom nag. bi yàlla di wax ak moom. di ko dénk. di ko dénk. di ko digal. di ko digal. dafa am lu mu ko nettali. dafa am lu ko nettali. te digle boobu. nee te digle boobu nag. kenn ci ñun génn ko. ne kenn ci ñun génn digle boobu. ña ñu jiitu woon génnuñu ko. ña ñu jiitu woon it génnuñu ko. ñii ñëw itam ëllëg génnuñu ko. ñii ñëw ëllëg it nag génnuñu ko. ba keroog yàlla diwal buft. ba keroog yàlla diwal buftam. te mooy aaya bi. te mooy aaya bi. baada audu billahi min alcheytaani rajim bismillahi arrahmani rahim. walaqad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah ah yàlla wax na aaya bi ne éey yéen ñi nga xam ne dénk naa leen ñi leen jiitu woon ak ñépp indil naa leen téere bi wax alquranul karim kir mu nekk seen référence ngeen mën cee niitu jox naa leen ko ak ñi leen jiitu woon ngir la ngir ngeen ragal bàyyi ma xel ma yàlla suñu kilifa suñu sang suñu sëriñ bi daan bokk moom bi daan bokk ak ñun ca jëmm ju tedd ja guddi gi bokk ak ñun toog fii. nee eh, suñu sëriñ suñu soppe bi toog guddi gii di di sëriñ Mouhamadul Mansour. di sëriñ Mouhamadul Mansour. radiyallahu anhu. radiyallahu anhu. wa bi barakatihi. yal nañu yàlla nee xamul kan. xawma ñan. xamul ñan. waaye moom de. waaye moom de. déggoon na aaya boobu. nee déggoon na aaya boobu. jëfe na aaya bi. jëfe na it aaya bi. ci dundam ak dundinam. ci dundam ak dundinam. digle na ko. digle na ko itam. jàngale na ko. jàngale na ko. ba moo tax ma ni képp ku ko amoon ku ko soppoon mbaa nga amoon ko te am nga di dëgg ci yow. nee moo tax mu ne képp koo xam ne amoon mbaa nga soppoon ko te soppee cofeel ga ak ameel ga di dëgg ci yow. tey nga ko gën a am. ne tey jii nga gën a am sëñ Mouhamadou Mansour. yàlla dolli leeram. yal na yàlla dolli leeram. mbokk yi ndax lii neexul. moo ndax mbokk yi ndax lii neexul. ndax lii dalul xel. ndax lii dalul xel. ndax lii waruñu gën a dolli ñu laxasuwaat takkuwaat. ndax lii waruñoo dolli ñu gën a laxasuwaat gën takkuwaat. léeg-léeg nit ne fi ba dem. léeg-léeg nit nekk fi ba dem. waaye Serigne Mouhamadulil Mansour. nit ku ne da am jagle. nee nit ku nekk yàlla dafa defal jagle. la ko yàlla jagleeloon. la ko yàlla jagleeloon. lu ci baree bari lu ci ëpp dina ko bàyyi fii ak njaboot gi. ne lu ca baree bari lu ci ëpp fi la koy bàyyee ak njaboot gi. yàlla wattul ko ko. waaye la ci ëpp ma nga fa moom tey. waaye la ci ëpp ma nga ca moom tey. xaw dégg ngeen ma wala déet. nee na xamul ndax dégg ngeen ko wala déet. yàlla nañu yàlla dollee boole yàlla dollee boole ci ay soppeem. ñu ñëw fi tey mbokk yi. ne tey nag mu ñëw fii mbokk yi. képp ku dégg gàmmu Pikine. képp ku dégg gàmmu Pikine. sa xel du dem lu dul dellu ci Cheikh Mouhamadul Mansour. lu dul dellu ci Sëriñ muy ku baax. muy ku baax. muy ku yiw muy ku yiw muy ku sell muy ku sell ku xam boroomam ne ku xam boroomam ku jaamu boroomam ku jaamu boroomam ku bëgg boroomam ku bëgg boroomam ku bëgg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy ku bëgg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam roy ko ci léppam ak féppam. roy ko ci léppam ak ci féppam. dama dégg suñu wayjur alxaaji Abdul Aziz Dabaax mu wax bés. nee dafa dégg baayam alxaaji mu wax benn bis. ne Serigne Mansour de jagleem àgg na ba ci. ne Serigne Mansour de jagleem àgg na ba ci. kaar kaar. kaar kaar. ndonoy Cheikh Al Hadj lépp yàlla jox na ko ndonoy maam maam Cheikh Al lépp. fa tabaarakallahu yàlla jox na ko. lan la maam El Hadj Malick sampe woon ëttam. lan la maam Cheikh El Hadj Malick sànce woon dëkkam sampe woon ëttam. mooy la yàlla njëkk sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mooy la yàlla njëkk sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. muy awalu ayatin bi njëkk a wàcc ci alquran. muy aaya bi njëkk a wàcc ci alquranul karim. te Jibril indi ko. te Jibril indi ko. ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. iqra bismi rabbik yàlla kat ba muy wàccee aaya ba ci jibril ci yonent bi néewu ko julli néewu ko sujootal néewu ko lenn daf ne ko iqra jàngal néewu ko sabbal néewu koy sabbal laltaayu xadara bi laltaayu kër gi mooy loolu ne laltaayu xadara bi laltaayu kër gi mooy jàng ba keroog Sidi Mouhamadul Mansour di wuy ji boroomam génnul daara yi. nee ba keroog sëñ Mouhamed Mansour di wuti boromam mi ngi ci daara ji génnul daara ji. man li ma ko gënoon a nawee lii la. nee moom li ko gënoon a lii la. du taar ba. nee du taar ba. du tabe ga. du tabe du xam-xam ba. du itte ja. du itte ja. du fonk nit ga. du fonk nit ga. li ma ko nawee woon lii la. li ma ko nawee woon lii la. itte ji mu amoon. itte ji mu amoon. mi ngi ci daara ji. mi ngi ci daara ji. génnul daara ji. génnul daara ji. mi ngi jàngale. ma ngay jàngale. ma ngay faj aajo yi. ma ngay faj aajo yi. ma ngay recevoir nit ñi. ma ngay recevoir nit ñi. te dara tardé lu ci wàllu jaamu yàlla. te dara tardé ci wàllu jaamu yàlla. ci lépp ak fépp. ci lépp ak fépp nag. lii dafa yéeme. lii nag bokk yi lu yéeme. fa tabaarakallahu. fa tabaarakallahu. ba tax na kon. ne ba tax na kon. Serigne Cheikh. Serigne Cheikh. ñu ngi lay ndokkeel bu baax. ne ñu ngi lay ndokkeel bu baax. di jël nuyoo bi. di jël nuyoo bi. di jël ziyaara bi. di jël ziyaara ndokkeel yooyu. di jël ndokkeel yooyu yëpp. teg ko ci sa loxo yu tedd yi. di nga joxal ñu ko njaboot gi. ne nga jël yooyu la yëpp teg ko ci loxo njaboot namm ma ci rek ku sant si. nee ci na rek ku sant ndax sama Abdoul Aziz Dabakh mas na ma wax ni. nee sama Abdoul Aziz Dabakh mas na ko wax ne ko. ca jag saaw ca jag saaw. asi. asi. bu leen sàggan de. bu leen sàggan de. ku ci sàggan ci rek. doomi maanaa yi. doom yi nga xam ne doomi maanaa lañu. dina ñëw ci ëtt bi jël lu fi nekk ci leer. daañu ñëw ci ëtt bi jël li fi nekk ci leer. ne kër gi këru pas-pas la. nee na kër gii na këru pas-pas la du këru sant. lan mooy pas-pas. xam nga ko. mu ne xam nga ko. ma ni ko déedéet. mu ne ko déedéet. mu ne ma kër gi këru yàlla la yàlla la tudd yàlla la sant. mu ne ko kër gi na këru yàlla la yàlla la tudd yàlla it la sant. ku xool ci suñu kilifa yu baax yi dinga xam ni loolu Baye du waxoon loolu moo fi ne. nee ku xool ci suñu kilifa yu baax yi da xam ne loolu Baye moo xool Alhaji Abdoul Aziz loolu mooy li am. te loolu yàlla def na ko ci képp ku fi teew tey di njaboot ci képp ku njabootu Sidi Mouhamadul Mansour. yàlla nañ ko muurloo. yàlla nañ ko muurloo. ñu ngi nuyu bu baax. nee ñu ngi nuyu bu baax. suñu kilifa gu baax gii nee suñu kilifa gu baax gi. di alxaaji daam Diop. di alxaaji daam Diop. ku ne cëpp ci senegaal nee ku ne cëpp ci senegaal dem ci barabu dëkkuwaayam. dem ci barabu dëkkuwaayam. gox ba mu dëkkee. gox ba mu dëkkee. ne alaaji daam Diop laay laaj. ne alxaaji daam Diop laay laaj. kooko laaj dina la ni daam man. koo ko laaj dana la wax la daam waaye boo yemee ci daam man suur waaye nag boo àggee ba ci daam suur dinañ téye sa loxo ba ca moom ne la mi ngi nii mi ngi nii yombul nag nee loolu nag yombul la koy maye mooy pas-pas la koy maye nag mooy pas-pas bu dëgër bu sell pas-pas bu dëgër bu sell waaye lu biire la biteewul waaye nag dafa biire biteewul Hadji Dame ñu ngi lay nuyu Aji Dame Diop ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziyaara. ñu ngi lay ndokkeel. di jaarale nuyoo bi ak ziyaara bi ci yow. di jaarale nuyoo bi ak ziyaara bi ci yow. mu jëm ci njaboot gu tedd kii. mu jëm ci njaboot gu tedd yi fi teew yëpp. aw ci secrétaire général. aw ci secrétaire général bi. ci membre commission bi yëpp. góor ak jigéen mag ak ndaw. góor ak jigéen mag ak ndaw. di leen gërëm di leen sant. ñu ngi nuyu monsieur le maire Papa Abdoulaye Ndoye di ko ziyaara bu baax. di ko ndokkeel. di ko ndokkeel. di bëgg lool bokk ak moom jataay bi. di ko yóbbante nuyoo ak ziyaara cant ak ngërëm ci monsieur le maire Hadji Pape Sagna nee di ko yóbbante cant ak ngërëm ak nuyoo ci monsieur le maire Pape Sagna ak mbooleem autorité yi nga xamante ni Pikine ëmb na leen ak ak mbooleem autorité yi nga xam ne Pikine ëmb na leen ak li wër Pikine yépp. di nuyu muqaddam yi bu baax. di teew yëpp nag. bàyyiwuñu kenn. bàyyiwuñu kenn. di nuyu mbooleem ëttu këru diine yi Pikine ëmb. di nuyu mbooleem ëttu këru diine yi nga xam ne Pikine ëmb na ko. waxin la. ne waxin la rek. waaye yàlla benn ëtt la am. benn ëtt la am. ëtt nag mën na yaatu. ëtt nag mën na yaatu. néeg ya mën na bari. néeg yi mën naa bari. ba bu guddi jotee. ba bu guddi jotee. ku nekk dem sa néeg tëddi. kenn ku nekk dem sa néeg tëddi. wéer sa gannaaw. wéer sa gannaaw. waaye bu bër setee. waaye mën nañu génnaat bokk ëtt bokk ëtt bi liggéey. noonu la ko la ko yàlla doxale bàyyiwuñu benn ëttu këru diine. nee fa tabaarakallaahu. nee fa tabaarakallaahu. suñu borom nag dafa am lu mu ñu wax. nee suñu borom nag dafa am lu mu ñu wax. wax ko sallallahu alayhi wa sallam. te lu mel nii du am. nee na te lu mel nii du am. ci ëttu kër Sidi Mouhamadunil Mansour. ci ëttu kër Sidi Mouhamadunil Mansour. ci xadara bi. ci xadara bi. ñu di jullit. ñu di ay jullit. di ay jaamu yàlla. di ay jaamu yàlla. di njabootam. di njabootam. di ay soppeem. di ay soppeem. te fàttalante manul. te fàttalante nag nee su boobaa kon du mën a ñàkk il faut ñu fàttalante. lan la yàlla wax sallallahu alayhi wa sallam. lan la yàlla wax sallallahu alayhi wa sallam. wa zakir. inna faati zikra yàlla nee na Muhammad fàttali ndax fàttali dana jëriñ ku fàtte woon mel ne dafa laaj sallallahu alayhi wa sallam. mu mel ne dafa laaj sallallahu alayhi wa sallam. na nga fàttali. ne ko ah, na nga fàttali nag. ndéem fàttali dina jëriñ. ndéem fàttali ga dana am njëriñ nag fàttali. yàlla wëlbatiku tontul yonent bi. yàlla wëlbatiku tontul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waxaat ne ko wa zakir fa inna zikra tanfaul muminin. ne ko ah na nga fàttali ndax fàttali dana jëriñ ki nga xam ne gëm na yàlla. ñi ñan lañu. nee ñi ñan lañu. yàlla tudd na leen ci alquran. yàlla tudd na ñi ci alquran. wax seeni melokaan. wax seeni melokaan nañu mel. dégg naa nag. nee dégg na nag. Baay Alaaji Mouhamadul nee baayam Alxaaji Mouhamadul Mansour. mas na wax ci jamonoom. nee mas naa wax ci jamonoom. almusalluuna kasiirun. nee jullikat yee ka bari. wal muslimuuna qalilun waaye jullit yi nag ñi néew kon mbokk yi dafa mel ni jullit comportement la. mais dafa mel ne nag mbokk yi jullit comportement la. bi ci njëkk duñ leen ko jàngal. mais bi ci njëkk nag duñ leen ko jàngal. wéetal sa borom. nee nga wéetal sa borom. yàlla loo ko associé mu gis boppam. yàlla loo ko booleel mu gis boppam. te nee na xajul ci kër. yàlla nee ci xajul ci ëtt. nee xajuma ci ëtt. xajul ci pénc xajuma ci ci dëkk. xajuma xajuma ci ab dëkk. xajuma ci réew. xajuma sax ci am réew. xam ngeen fu ma xaj. xam ngeen man yàlla fan laa xaj. xol bu sell bu laab bu dara koojul. xol boo xam ne sell laab na dara koojul ko boo ca demee cell la nga cay fekk. te nee na su ma fa suñ ma fa xasee ba santal ma fa. te nag nee na place booba man yàlla du ma fa xasee ba santal ma fa. du ma nangu leneen fekk ma fa. ah man nag su boobaa nag ah du ma bokk nag du ma nangu leneen fekk ma fa nag. du ma fe du ma fa fekkit leneen. nee du ma fa fekkit leneen nag. la ñuy may nag ñu mën a pratiquer loola ba am loola. la ñuy may nag ñu mën a jëfandikoo ba am loola. mooy li ñu yàlla digal. mooy li ñu yàlla digal. kim ñu digal ñu roy ko. kim ñu digal nañ ko roy. laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun liman kaana yarju llaha wal yawmal axira ila axiri al aaya. mais ki ñu yàlla royloo jikkoom mooy sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne bëgg ngaa am yiw woo xam ne. du jeex benn yoon waral Seydina Muhammad ay jikkoom ak ay meloom ak ay doxalinam. sallallahu alayhi wa sallam nag. nee sallallahu wa sallam nag. dunduñu jëm dunduñu moom ci jëmmam. nee dunduñu ak moom ci jëmmam. waaye ahaka yi. waaye ahaka yi. ak yonent. nee ak yonent. amatu yàlla yónneetul kenn. yàlla yónneetul kenn. waaye garaatu yonent du fi jóg. waaye garaatu yonent nag du fi jóg. moo tax su ma seetee ba seet. moo tax ne bu seetee ba seet. ku mel ne Serigne Mouhamadul Mansour. ku mel ne Serigne Mouhamadul Mansour. xaw ma ñan. mais xamul waaye ñun de yonent la ci ñun. waaye ñun daal yonent la ci ñun ndax bi yonent yoroon moom la yoroon. lépp lu war a lu waree fa roye ci sallallahu alayhi wa sallam roy na ko ca dund loolu ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Serigne Mansour roy na ko ci. jëfe na ko bàyyi na ko muy jafe kon ku li mu daan wax ni ku am lu jafe dangay ngay jafeñ li mu daan wax ne ku am lu jafe da ngay jafeñ ci yan anam ak ci yan façon kàddoom masul tàqalikook ñun nee kàddoom masul tàqalikoo ak ñun ci digal ñu ci digal ñu ci ñaax ñu ci ñaax ñu bëgg yàlla bëgg yàlla jaamu yàlla jaamu yàlla wéetal yàlla wéetal yàlla topp yàlla topp yàlla sopp yàlla sopp yàlla roy sunna yonent roy yonent bi ba noppi sax ci ba noppi nag sax ci dama dégg ci Baye Abdou mu ne nee dafa dégg ci Baye Abdoul Aziz mu ne mu ne wax ji bari na mu ne wax ji bari na ñëpp a ngi naan sharia sharia. ñëpp a ngi naan sharia sharia. a shariatu mënul dëgër te nit ki awul ci sunna. nee sharia mënul dëgër te nit ki nag jaawul ci sunna. jigéen ñaa ngi dem di julli ji juma jigéen ñaa ngi dem di julli ji juma. taxaw taxawaay bu dëgër. taxaw taxawaay bu dëgër. mu ne xam ngeen lu jafe. mu ne xam ngeen lu jafe. sopp sunna sopp sunna roy sunna ba noppi sax ci ba noppi nag sax ci sunna te lañu koy may te la ñuy may loola nag al istiqaamatu mooy rek nag ñu jub nag sax ci njub googu mu ne sax ci sunna mu ne sax ci sunna nii laa leen koy misaale nee daal nii la ñu koy misaale ndéefu nag. nee mu ne ndéefu nag. bu ñu boyal ba mu boy. bu ñu mu boy. mu. nga teg ci sa tànk. muy lakk. muy lakk. tàmbalee sa tànk. tàmbalee sa ba ci sa cerveau. ba ngay dégg sa bopp di yëg ne yaa ngi te doo ni u. te doo woon. doo binni. doo binni. doo gestu. loolu mooy sax ci sunna. mooy sax ci sunna. Serigne Mouhamadul Mansour nag foofu la toll. nee Serigne Mouhamadul Mansour nag foofu la toll. jëfe lu baax. jëfewoon na lu baax. digle lu baax. digle na lu baax. maa ngi koy wax léegi Serigne Cheikh. nee mi ngi koy wax léegi Serigne Cheikh. ma ni ko ci. gannaaw bi mu génnee àdduna. mu dama toog ak Serigne Habib. dafa toog ak Serigne Habib. ko daal Serigne Habib. mu ne ko daal Serigne man bi sa maam Abdou àdduna. man bi sa maam Abdou àdduna. am na lu ma yëgoon. am na lu ma yëgoon. waaye demu Serigne Mansour. waaye li ma ci yëg. li ma ci yëg. mosuma koo ci benn dem. waaye alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin yal yàlla dollee taas ci barkeem yal nañu yàlla dollee taas ci barkeem su ko defee kon mbokk yi su ko defee kon nag mbokk yi ñu gën a góorgóorlu ci suñu diggante ci suñu diggante ak suñu borom fonk laab nañu fonk laab lépp loo gis dafa am yoon lépp loo gis nag dafa am yoon laab bu sellul beneen benn xeetu jaamu yàlla mënul sell. nee laab bu sellul benn xeetu jaamu yàlla mënul sell. te ñun Sénégalais yi bëgg nañu diine waaye patience la ñu amul. nee ñun nag Sénégalais yi bëgg nañu diine waaye daal dañu xaw yàkkamti ba ci dugg ci wan ak tuur ndox. ba ci dugg ci wan ak tuur ndox. am na lu la diine sant. am na lu la ca diine sant. te mooy li tu def ferlu. te mooy li ñuy tudde nag ferlu te mooy toog fa ab diir. waaye bu dee ku mel ne man. waaye daal bu dee ku mel ne man. dinaa toog. danaa toog di wax lu sama yoon nekkul di xool lu ma warul xool di ba ñu dégg ba ma dégg ñu nodd ba ma dégg ñu nodd taxul ma jóg taxul ma jóg ba dégg ñu ne bismillah taxawal leen te mooy liqaam te mooy la nga ne bëreet dugg dugg allahu akbar ñi ci wàllu laab nee ñi ngi doon wax ci wàllu laab lu mel noonu dal la nee lu mel noonu dal la toog ba dégg liqaam nga toog ba dégg ñuy liqaam ma bëgg a jóg nga bëgg a jóg. dugg ci wanag wi. dugg ci wanag wi. tuur fi ndox. tuur fi ndox. ferlu fi. ferlu fi. wisu fi. wisu fi. jàpp fi. jàpp fi. ñëw bokk. ñëw bokk. ci rakka bu njëkk bi bu njëkk bi. ku ne xam na ni mënul ne. ku ne xam na ne bu boobaa boo ci bokkee dañ caa bokk waaye amuloo julli. loolu sa bopp la. loolu nag tardeel sa bopp la. te muy loo xamante ni. nee te muy loo xamante ne. sallallahu alayhi wa sallam nee na. ndax génn na ci Madina. nee génn na ci Madina. am ñaari saxaaba yu mu àndal. am ñaari saxaaba yu mu àndal. dem ba romb ñaari bàmmeel. dem ba romb ñaari bàmmeel. mu wattu ay mu wat mu. mu dagg ay caru ca tàndarma. mu ne saxaaba yi dagg leen ñaari cari tàndarma. bu nekk ñu samp ko ci bàmmeelam. benn bu nekk nañ ko samp ci bàmmeel ñaari bàmmeel yi bu nekk ñu samp ci benn car. ne ñaar ñii ñu ngi leen di mbugal mbugal yu metti ne ñaari bàmmeel yi ñu ngi mbugal seeni borom mbugal yu metti pourtant ay jullit lañu. te nag ñii ñuy mbugal de ay jullit lañu woon. daan nañu julli. daan nañu julli. di góor góorgóorlu seen diine. daanañuy góorgóorlu ci seen diine. waaye kenn ki. waaye kenn ki. daf daan def bu tuuree ndox. daf daan def bu tuuree ndox. du ferlu. du fa toog ab diir ferlu déedéet. looloo looloo tax suñu borom di ko mbugal. looloo tax suñu borom di ko mbugal ci loolu. ki ci des nag. ki ci des nag. loolu moo xew ci jamono. tey nag lii ki ci des nag moo xew ci jamono gën a bari. daf daan yàq ay diggante rek. moom daal rambaaj la woon boo xam ne diggante bu mu fekk mu jub rek mu fexe ba diggante boobu yàqu. jële xabaar fii yóbbu fee jële fee yóbbu fee. fépp fu mu fekk xabaar it dana ko fa jële fexe ba yóbbu xabaar ba fu mu eggagul woon pour yàkkamti. dañ koy xeeb ci suñu société fekk na lu rëy la ca yàlla. dañ koy xeeb nag ñun ci suñu réew wala suñu dund waaye fekk lu rëy ca yàlla la. kon ñu bàyyi xel loolu bu baax. bàyyi xel loolu bu baax. fonk julli juróom. nañu fonk julli juróom. julli kenn mënu ko defal kenn. nee julli kenn mënu koo defal kenn. ku la ni mën na la wuutu jullil la. ku la mën na laa la. waxu la dëgg. nee la bu boobaa da lay nax waxu la dëgg. ndax lan. ndax lan. asalaatu imaadu diin. ne julli mooy kennu diine su julli amul diine mënul nekk. bu diine dee jëmm julli mooy boppam. ne su fekkee diine jëmm la julli mooy boppam. jëmm nag loxo mën na mën nañu mën nañu dindi loxo. ne jëmm nag loxo mën na caa deñ. jëmm ja des fa di dund. jëmm ja des fa di dund. mën nañu dindi bët. mën nañu dindi bëñ. mën nañu dindi bëñ. mën nañu dindi bëñ. wala nopp. wala nopp. wala tànk. wala tànk. waaye dindi nañu bopp ba. waaye dindi nañu bopp ba. suuli rek. nee suuli rek. ñu bàyyi xel julli juróom. nee na ñu bàyyi xel julli juróom ko di ko matal di ko def ca waxtu. inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta. nee julli de yàlla defal nañu waxtu yoo xam ne waxtu bu jote rek julli ga jot na fu mu jote nag. defe ko rek fam fañ la ko sant inna salaata tanha an ilfahshaai walmunkar ne te julli ne soo ca saxee di ko def lépp lu bon da la cay jële lépp lu baax da la cay dugal te dafay yombal say mbir yëpp ndegam yaa ngi koy defee na la yàlla wax maa ngi koy nettali ay mbokk keroog ne mi ngi nett nettali ay mbokku keroog dañu ànd ak Serigne Maodo Sy bu Alhaaji Abdou Aziz l'an 2000 dem Italie ne dafa ànd ak magam Cheikh Alhaaji Malick Sy Maodo demoon ca mbokk ya ñu seeti woon sëriñ bi di waxtaan ak ñoom. mbokk ya ñu seeti woon ca état yi sëriñ bi di waxtaan ak ñoom. ba mu paree mu ne ku am lu muy laaj nga laaj ko bu ñu ko xamee tontu la bu ñu ko xamul dellu ci téere yi. mu ne ku am looy laaj nga laaj ko suñ ko xamee tontu la suñ ko xamul dellu ca téere yi seetiwaat leen a tontu. am benn ndaw kundaa bu jóg. am benn ndaw kundaa bu jóg. ne ko man de li ma bëgg a laaj sëriñ bi man grossiste la mu ne ko man de ma laaj sëriñ bi man grossiste la sëriñ Maodo ne ko grossiste ci ban domaine. mu ne ban domaine. lan ngay ban commerce ngay def. ban commerce ngay def. mu ne ko déet commerce ma de. mu ne ko man commerce ma. maanaam grossiste laa ci julli bi. maanaam grossiste laa ci yi. ndax ñun ñu ngi ci àll bi. ndax kat ñun ñu ci àll bi. dañuy teel a jóg. dañuy teel a jóg. boo teelu la jóg. boo teelu la jóg. doo am place bu baax. doo am place bu baax. ci luuma yi. ci luuma yi. moo tax damay boole suba. nee damay boole suba. tisbaar. Tisbaar takkusaan takkusaan timis timis gée gée ba dellu si ci kër gi ba dellu si ci kër gi soog ko def soog koo def sëñ Maodo ne ma tontu ko sëñ Maodo ne ko tontu ko ma ne ko ndax grossiste nga ci li nga bés yi ngay liggéey mu ne ko ndax grossiste nga ci bés yi ngay liggéey mu ne loo ci namu mu ne lool namu ci loolu ma ne ko semaine bi yëpp da ngay dem lali mu ne ko semaine bi yëpp da ngay dem ci luuma yi di lali mu ne ma waaw ne ko waaw ma ne ko ndax kon dina gën nga boole ajjuma samedi dimanche altine talaata àllarba alxames bañ a liggéey lu dul di dal ajjuma rek. mu ne ko ndax da mën a boole alxames ajjuma samedi dimanche ba semaine bi jeex nga boole yépp lal ko muy benn bis ndax da ko man mu ne ma sëñ bi kon àdduna tukki di. mu ne ko ah kon àdduna tukki di. ma ni ko ndax ni ngay boolee julli yi noon ngay boolee ndékki añ reer ak njoganal ba dellu si ci kër gi. mu ne ko ndax ni ngay boolee julli yi noonu ngay boolee añ ndékki añ reer. ba dellu siwaat mu ne kon du ñu am kattan pour taxaw mu ne ko ah, suñu lekkul nag kattan du mën a am ba ñuy taxaw di liggéey ma ni ko kon na ngay organiser sa bopp programmer ko sa mbir ba mën a def yooyu noonu nga ko mën a defee ci julli gi mu ne ko kon nag na nga a programmer sa mbir ba mën koo def ci sa liggéey noonu ak say lekk noonu nga war a mën a programmer sa bopp itam ci wàllu julli bii nga xam ne moom la yàlla la yàlla sant. walla jàpp ba pare ñëw. wala jàpp ba noppi ñëw. jullee nu la neexee. jullee naa ci génn rek. naa ci génn rek. léeg-léeg nga gis ku mel ne man. léegi léeg nga gis ku mel ne man. allahu akbar. ne allahu akbar. taal télé. taal télé bi. jël télécommande bi. jël télécommande bi. mi ngi sawet. mi ngi ci sawet. surtout lu mel ne lamb bu amee. lu mel ne lamb su amee. di nga dem ba kabbar. daa dem ba bëgg a mbër mi bëgg a daan mbër mi. nga nga kurpeñ. su boobaa sa ju sa sa sujjóot maanaam sa rukkoo dootu nekk rukkoo ab kurpeñ ngay jóbbu léegi. wala di julli. wala di julli. sa portable sonné sa portable sonné. nga génne. nga génne. xool numéro bi. xool numéro ba. bu dee loo waroon a jot. a nga ni un un un. ana julli de. boo su boobaa ana julli. te sallallahu alayhi wa sallam nee na. nee te nee na. li ñuy njëkk a gëstu ci jullit bi. nee li ñuy njëkk a gëstu ci jullit bi. ci wàllu audition am. nee ci wàllu audition yàlla julli lay njëkk a xool. nee yàlla julli lay njëkk xool. bu yéwénee sa mbaaxu boroom nee bu julli yéwénee ci sa mbaaxu borom. mën na am kenn du xool la ca des. man naa am la ca des lépp nag yàlla du ko xool. waaye bu julli yéwénul nag. waaye daal bu julli yéwénul. lu ne gaa dinañ ko gëstu. gaa ñi danañ ko gëstu ci yow. kon ñu bàyyi xel julli bu baax kon nag bokk yi nee na nañu bàyyi xel julli bu baax nañ ko bàyyi xel. ak yeneen ponk yi ci topp. ak yeneen ponk yi topp ci julli yëpp ñu bàyyi ko xel. waaye am na lu gën a itteel yàlla. waaye daal am na lu gën a itteel yàlla. ku ne xam na ni yàlla kenn juru ko jurul kenn. ku ne xam na ne yàlla kenn jurul ko yàlla jurul kenn. jàng ngeen qul huwa allahu ahad. nee kat ku nekk jàng saar boobu ñu wax huwa allahu ahad ne yàlla daal amul doom amul ndey amul baay yàlla amul kenn ku koy nawlanteel te sababu wàccam mooy ba waa Quraysh ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wax yonent bi ne ko melal ñu wala wax ñu kan mooy sa boroom yàlla mooy kan daal ba waa Quraysh ñëwee ko wax ñu melal ñu mooy sa borom melal ñu sa borom nan la mel loolu ci la saar bi wàcc kon ku kenn kenn juru la bokkuloo kenn. kon nag koo xam ne juróo kenn kenn juru la kon kay yow kay bokkuloo kenn. waaye diggante yi itteel na yàlla. waaye daal suñuy diggante nag moom itteel na yàlla. bokk ndey bokk baay. nee ñu bokk ndey bokk baay. ku xam Sidi Mouhamadul Mansour. nee képp ku xam Sëriñ Mouhamadul Mansour. mission yëpp loolu la woon. mission yëpp loolu la woon. boole rek. da boole rek. te yàlla tax te yàlla tax. loolu itteem la woon. loolu itteem sëñ Mansour la woon. la ñu koy may nag. la ñu koy may nag. mooy bëggante. mooy ñu bëggante. te yàlla tax te yàlla tax. soppante dañu soppante. te yàlla tax te yàlla tax. xormaalante dañu xormaalante. te yàlla tax yàlla tax. dimbalante dañu dimbalante. te yàlla tax te bi ci gën a doy waar. nee bi ci gën doy waar. te xaw a xewee di ci jamono. nee te xaw a ci jamono. te mu itteel yàlla. te loola itteel yàlla. jëllale jéggale. nee jëllale jéggale. jéllale jéggale nee jéllale jéggale waaye gënul waaye nee gënul diw daal diw daal lim ma def lim ma def dinaa fayu ba wis ko danaa fayu ba wis ko dina xam ne maa ko ëpp bokk dana xam ne maa ko ëppi bokk maa ko ëpp xame maa ko ëpp ay xame maa ko gën a gudd loxo maa ko gën a gudd loxo la daloon góoru bambara ga la daloon góoru bambara ba ca kaw la ca kaw bu buntu ne nee buntu butigam. wala palaasam ba muy liggéeyee. wala palaasam ba muy liggéeyee. am xale buy ñëw léeg di fa jaay di fa lal. am xale buy ñëw léeg-léeg di fa lal. mu tere ko tere mu bañ. mu tere tere xale bi mu bañ. mu fexe daal ba defi pexeem. mu fexe ba def ay pexeem. tëkku na xale bi. tëkku na xale bi. ne ko dinaa la tëjlu. ne ko dinaa la tëjlu. xale bi ne ko yàlla laa ragal. xale bi ne ko man ne kenn la ragal te moo yàlla. mënaloo ma dara. mënaloo ma dara. bés bés ñëw rek. bés ñëw rek. ah ñu ñëw jël xale bi. ñu ñëw jël xale bi. mënoote. mënoote. yóbbu ca giri ba. yóbbu ca giri ba. mbokk yi jaaxle. mbokk yi jaaxle. ñu ne leen dem leen ñaan góor gi. ñu ne leen dem leen ngeen ñaan góor gi. bi ñu ñëwee ñaan ko. bi ñu ñëwee ñaan ko. mu ne yéen laa doon kaar. mu ne yéen rek laa doon xaar. ànd ak mbokk yi. ànd ak mbokk yi. ba ca ba ca commissariat ba. ba ca commissariat ba. ne ko diw. ne ko diw. mu ne ko labbayka. mu ne ko labbayka. mu ne ko waxoon naa la ko. mu ne ko waxoon naa la ko. maa la mag. maa la mag. surtout ëpp la alal. rawatina ma ëpp la alal. alal ji ma am. alal ji ma am. su ma su ma la ci mënul tëj. su ma la ci mënul tëj. duma la ci duma la ci lu muy jariñet lu muy kon jéllale jéggale nee kon nag jéllale ak jéggale waaw loolu nag xaw nañu të nee loolu nag xaw nañoo të te mbokk yi ku dul jéggale doo jéllale yàlla du la jéggal nee mbokk yi ku dul jéllale doo jéggale yàlla du la jéggale ku am ku mel ne sëriñ Mansour référence nee ku am ku mel ne Serigne Mansour ci royuwaay ah da war di jëlale di jéggale. da ngaa war di jëllale di jéggale. di dimbale. di dimbale. góoru yàlla googu. nee góoru yàlla googu. waxuma la nit ñi. nee waxul nit ñi. jinne yeeg njanaaw yi sax jooy nañ ko. jinne yeeg njanaaw yi sax jooy nañ ko. ndax loxoom bu tàlli woon. ndax loxoom bu tàlli woon. yemale ci ñëpp. yemale ci ñëpp. xool la bëtu yërmande. xool la bëtu yërmande. te yàlla tax. te yàlla tax. bëtu cofeel. bëtu cofeel. buntam masul tëj. buntam masul tëj. ubbeeku ci ñëpp. ubbeeku ci ñëpp. ku ñëw ak noo mën a ñëwee. ku ñëw ak noo mën a ñëwee. yàlla xamal na ko li tax nga ñëw. yàlla xamal ko tax nga ñëw. soo ko dee nax sax. soo ko dee nax sax. xam na nax yi. xam na nax yi waaye mu nangu ko. waaye mu nangu ko ndax yow ak boromam. kon. nee ko ku am ku mel noonu. war nga mel nu kenn melul. war nga mel nu kenn fa tabaarakallaahu. tabaarakallaahu. su ko defee kon mbokk yi. nee waxtu waa ngi dem. nee waxtu waa ngi dem. loolu entre parenthèse la woon. loolu entre ngi nuyu njabootu sama maam Cheikh Al Hadj Omar mi ñu bokkal jotaay bi. nee ñu ngi nuyu njabootu maam Cheikh Omar bi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom jotaay bi. ñoom ñooy suñuy sëriñ. nee ñoom ñooy suñu sëriñ. ñu ngi leen di ziyaara bu baax. ñu ngi leen bu baax. di leen jox seen wàccuwaay. di leen jox maa ngi nuyu suñu sëriñ soxna Umul Xayr. nee mi ngi suñu sëriñ soxna Umul Xayr. di borom waañ yi. di borom waañ du waañ wi waañ yi. du waañ wi kat waañ yi la. di ko ziyaara bu baax. di ko ziyaara bu baax. di ko ndokkeel bu baax. di ko ndokkeel bu baax. nee di ko masawu itam nag. ak mbooleem njaboot gi mu bokkal nekk ci biir kër gi. ak mbooleem njaboot gi mu bokkal nekk ci biir kër gi. soxna maam Fama bu sëriñ Abdoul Al Amin mi ngi fi. soxna maam si. bu maam As si Jamil mi ngi fi. nee soxna Asietu si bu maam As Jamil mi ngi fi. bu ñu nuyoo bu ñu leen nuyoo nuyu nañu mboolem jigéen ñu tedd ñi ñu bokkal jataay bi. nee bu jigéen ñu tedd ñi ngeen bokkal yépp ndokkeel leen bu baax. nee ndokkeel leen bu baax. li xalifa bi daan wax rek. nee li xalifa bi daan wax rek. ñoom ñooy kirij. nee daal jigéen ñi ñoom ñooy kirij. te kirij baax na lool ci oto. nee kat kirij baax na lool ci oto bala nga koo xam nga nga kër. dontale oto bu bees nga amee. oto bu bees nga amee. te kirij amu ca. te amu ca. wóorul. nee wóorul. daan na wax tamit ne. daan na wax tam ne. ñetti baay yi. ñetti baay yi. jigéen ñi ñoo ñu koy defal. jigéen ñi ñoo ñu koy defal. ñoo ñuy paas ñoo ñuy paaseel. ñoo ñuy ñoo ñuy baaseel. ñoo ñuy ñoo ñuy paaseel. ñoo ñuy paasal. ñoo ñuy paasal. waaw moo tax may wax ni. ne moo tax na muy wax ne. waaw góor moo daan jib. waaw góor moo daan jib. waaye waaw kumba jëlee na fi waaw góor waaye nag waaw kumba jëlee na fi waaw góor. te xam ngeen ni jigéen cëram dafa rëy. nee te xam ngeen ni jigéen cëram dafa rëy. xool leen ku mel ne suñu ndey sittuna Xadijata radiyallahu anha. xool leen ku mel ne suñu ndey sittuna Xadija radiyallahu anha. mooy ki njëkk a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nee mooy ki njëkk a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xanaa ki la ni wooteel xanaa li ngay woote du dëgg. moo Xadija ñëwut ne yonent bi xanaa li ngay woote ndax da dul dëgg. mu ne ko ah kay. mu ne mu ne ko woo ma ma wuyu la. mu la man Xadija. mu wa annaka rasulullah. mu Khadija moomu. nee moomu. moo demoon ba am garaatu. moo demoon ba am garaatu. léeg-léeg Seydina Jibril alayhi salaam. léeg-léeg Seydina Jibril alayhi xotti. gosu goxu asamaan yi. ne cëpp ci rasulullah. nuyu ko. nuyu rasulullah. yonent fay ko. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lu xewati. ne ko lu xewati yaa Jibril. indi aaya. da wala atte. wala atte nga indi. wala mu ne ko loolu taxumaa jóg. mu ne ko déedéet yooyu yëpp sa borom nee na. sa borom nee nga nuyul ko. nga nuyul ko. ziyaaraal ko. sa soxna su baax sii ci biir kër gi. soxna su baax su tedd si ci biir kër di mooy surtout naa Khadija. di Khadija di nee na nga wax ko ni. nee na nga wax ko ne. këram. këram ca aljanna ca aljanna. mi ngi koy xaar ne bu yàgg mi ngi koy xaar buy dee rek dugg aljanna. te Khadija yi ñoo toog. te ne yéen ñii toog yéen jigéen ñi nag yéenay Khadija yooyu. yàlla na leen yàlla dollee taxaw yàlla na leen yàlla dollee ñu ngi ñaan yàlla ñi ci am borom kër. ñi ci am borom kër. ñu tarbiyu seeni jëkkër. nee ñu ngi leen di ñaan ngeen def la leen war tarbiyu seeni borom kër. ci anam ya ko yàlla suñu borom santaane. ngeen def tarbiye ba nag ci anam ya ko yàlla santaane. sàkku seeni ngërëm. ngeen sàkku seeni ngërëm. ndax seen njaboot yàlla barkeel ko. ndax su boobaa seeni njaboot yàlla mën koo barkeel. na yàlla barkeel njaboot it yal na yàlla barkeel njaboot yi yëpp nag. ñi amul borom kër yal na leen ko yàlla jox. ñi kër yal na leen ko yàlla may. ñi bëgg njaboot yàlla nañ ko am. ñi bëgg njaboot yal ko am. fa tabarakallahu tabaarakallaahu loolu itam la ñuy ñaanal góor ñi loolu lañuy la ñuy ñaanal góor ñi ku amagul yàlla la may waaw ñaanal njaboot yi nekk bitim réew ñaanal njaboot yi nekk bitim réew adduna xaw na tekkaaral. nee adduna bi xaw naa tekkaaral. waaye lu ciy solution bi. waaye daal lu ciy solution mooy. ndax mooy yanu say loxo yooxu. moo ndax mooy yanu suñuy loxo di yooxu. wooy fu ma jëm. wooy fu ma jëm. Baye Abdoul Aziz Dabakh daan na ko wax. nee Baye Abdoul daan na ko wax. bés bu ñu jàmbatee ni bekkoor am na. bés bu ñu jàmbatee ni bekkoor am na. taw amul. taw amul. déeg yi feesul. déeg yi feesul. dara ñorul. dara ñorul. nit. nit mi yàlla mujj a bind. mi yàlla mujj a bind. defal ko teraanga bu mu defalul beneen mbindaafoon. defal nit teraanga bu mu defalul beneen mbindaafoon bu mu bind. mooy xëy fajar. mooy xëy fajar. ne naa wuti dépense. nee naa wuti dépense. dem ba ak ba génn néegam. dem ba génn néegam. tolloog buntu këram. tolloog buntu këram. jonkan. nee na jonkan. ne wooy fu ma koy jël fu ma koy jëlee ji. jaaxle. jaaxle lu tax. lu tax dafa wóoluwul yàlla. dafa wóoluwul yàlla moo tax. njanaaw njanaaw mi taw amul bi bi nga xam ne moom day bu taw amee bu amul ñam ñorul ñam dara ñorul mooy xëyee cim tàggam mooy xëyee cim tàggam wóolu yàlla wóolu yàlla gëm yàlla gëm yàlla naaw naaw wëti wëti yàlla jox ko lu mu yàlla jox ko lu mu lekk ba suur su ñëwee. bu ñëwee. xool njabootam. indaale ci lu mu indaaleel doom ji. kon mbokk yi. kon mbokk yi. ngëm yàlla. ngëm yàlla. gu kóolute lalul. gu kóolute lalul. wóorul. nee na loolu wóorul. yàlla da koy wóolu. yàlla da nga koy wóolu. jox ko sa bopp. da ngay jël sa bopp jox ko yàlla. jox ko sa lépp. jëlal sa lépp jox yàlla. jox ko sa fépp. jëlal sa fépp ak sa lépp jox yàlla. góorgóorlu ci rafetal. góorgóorlu di rafetal. góor góor lu it di sellal. yàlla soxlawul quantité qualité la soxla. yàlla soxlawul quantité qualité la soxla. seet leen ci suuratu wal asr. nee seet leen ci saar boobu ñuy wax suuratu wal asr. innal insaana la fi xusr. yàlla ne maa ngi giñ ci jamono wala maa ngi giñ ci tàkkusaan innal insaana naka doomu aadama la fi xusr mi ngi ci perte. ñëpp tiit. ñëpp tiit ci loolu. yàlla ne illal lazina amanu ah yàlla ne illal lazina amanu ndaree gaa ñi nga xam ne nag amanu ñu ci biir daayiratul iman eh, ñi yàlla ñi yàlla def ñu gëm ñëpp féex ñi yàlla def ñu gëm ñëpp féex waaye yàlla am lum ci ataf mooy wa amilu saalihaat yàlla am lum ci ataf ne nag wa amilu saalihaat yi ñi nga xam ne ñi ngay jëf jëf ju sell te sax ca sellal ga kon al imaanu bi duuni amalin saalih eh, imaan nekku fa ne imaan boo xam ne jëf ju sell lalu ko ngëm nekk fa wala amalu saalix bi duni imaanin nee na mi jëf ju sellit te ngëm nekk fa itam ngëm mënul taxaw nee bu boobaa ngëm nga taxaw kon boo seetloo day mel ne ñoom ay ñaari seex lañu yu yàlla bindandoo wàccendoo leen kon dafa mel ne ñoom ñaari seex lañu yu yàlla bindandoo wàcceendoo leen. muy al imaanu wala amalu saalih. mooy gëm yàlla ak jëf ju sell. la ñu koy may nag. la ñuy may loolu nag. yàlla wax nañu ko. yàlla wax nañu ko. ci suñuy diggante ci suñuy diggante. suñu digganteeg moom suñu digganteeg moom. ku ci nekk sa digganteeg sa jëmmi bopp. ku ci nekk sa digganteeg sa jëmmi bopp. mooy lan. mooy lan. wa bi bil xaqi wa tawaasaw bis sabr. waaye nañuy dénkante ci muñ. nañuy dénkante ci dëgg lu metti metti nee na dëgg nañ koy wax. lu muñ lu dox seen diggante it nee na ngeen di muñalante ci seen biir waaye na waxin wa rafet. waaye daal wax ja bu mu na rafet. bu dee jëf na jëfin wa rafet. bu dee jëfit na na jëfin ndax ca ma nga mën cee am ngërëmal yàlla tey ak ëllëg. ndax su boobaa nga mën cee am ngërëmal yàlla fii ci àdduna am ko fële yi ñu di ëllëg. bokk ndey bokk baay rek. dañu bokk ndey ñun ñëpp te bokk dafa am xadis bu yonent bi di wax ni. nee dafa am xadis bu yonent bi wa sallam di wax ne. aljamaatu rahmatun. nee mu ne mbooloo yërmande wal furqatu azabun. nee teqaliko woo mbugal la. Baay Sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu ca cër yaak may yaak xam-xam ba dégg naa nii la ko daan firee. nee Baay Sëriñ Babacar Si ca cër ya ca may ya tabaarakallaahu nee nii la ko daan firee. aljamaatu ay bokk. mu ne aljamaatu ay bokk. aljamaatu ay soppe. aljamaatu ay soppe. aljamaatu mbooloo. aljamaatu mbooloo. aljamaatu ay dëkkandoo. aljamaatu ay dëkkandoo. ànd. ànd rafetal àndin wa rafetal kàndin di yëkkateendoo di yëkkateendoo di tegandoo di tegandoo rahmatun lu ñu jéem lu ñu jéem yàlla daf cay ànd yàlla waaye ñu war a ànd waaye ñu war a ànd war a soppante war a soppante war a bëggante war dimbalante war a te defuñu ko defuñu ko azabun ne azabun lu ñu jéem lu ñu jéem dañuy yonjax dañuy yonjax yàlla daf leen di njuuy yàlla leen di njuuy yàlla na yàlla rafetal diggante yal na yàlla rafetal suñuy diggante. te saxal ñu si. yal na ñu yàlla saxal ci ñuy rafetal suñuy diggante. yàlla bu mu nekk suñu mujj daje. nee daje bi yàlla bu mu nekk suñu mujj daje. ñu ngi nuyu di ziyaara bu baax ñi amee wàllu organisation bi. nee ñu ngi nuyu di ziyaara bu baax ñi amee wàllu organisation bi. Serigne Mansour ma nga ca Barzak. nee Serigne Mansour a nga ca Barzak. waaye billaahi jataay beeg lu fi xew ak lu fi jib dara ump ko. waaye wallaahi nee jataay beeg li li fi xew dara ci. te gars yi yàlla yi am na ñuy dem Barzak di ñëw àdduna. nee am na ñoo xam ne kat ña ngay dem Barzak di ñëw àdduna. di ñëw ci kër yi. di ñëw ci kër yi. di ñëw ci njaboot gi. di ñëw ci njaboot ñëw ci soppe yu dëggu yi. di ñëw ci soppe yu dëggu yi. ak borom pas-pas yu sell yi. ak borom pas-pas yu sell yi. ndax amatuñu kumpa. ndax ñoom amatuñu kumpa. amatuñu kumpa amatuñu kumpa. rawatina gaayu yàlla yi rawatina gaayu yàlla yi. kon dollee góorgóorlu rek. nee kon ñu dollee góorgóorlu rek. yàlla na yàlla gën a dëgëral mbooloo mi. yàlla na yàlla gën a dëgëral mbooloo mi. wax naa léegi nag ci biir. wax na léegi ci biir. allahuma la adur. nee yàlla bu yàlla def lor ci kaddu yi. allahuma la adur. nee yàlla bu ci yàlla def lor mukk. allahuma la adur. yàlla bu ci yàlla def ku ni ci ñun soppoon nga Serigne Mansour. ne ku nekk ci ñun soppoon nga Serigne Mansour. ku ne ci ñun. ne ku nekk ci ñun. wax nga ni. wax nga ne. waayoo woon nga ko. waayoo woon nga ko. soppoon nga ko. soppoon nga ko. moo doon sa wasiila. moo doon sa wasiila. moo doon sa royukaay. moo sa royukaay. mu dem Barzak. mu dem Barzak. bàyyi fi njaboot gii. bàyyi fi njaboot gii. Serigne Cheikh nekk ci kanam. Serigne Cheikh nekk ci seen kanam. te dabaatuloo loolu. te dabaatuloo la nga wax. la nga wax seetaat ko. seetaatal sa wax. sëñ Mansour demul. sëñ Mansour demul. sëñ Mansour a ngi nii. sëñ nii toog. bëggul ma wax ko. bëggul mu wax ko nag. waaye dafa am lu ñu xam ci moom. waaye dafa am nag ne lu loo xam ne ñoom xam nañ ko ci moom. wallahu shahidun ala ma aqul. ne li muy wax nag yàlla la ci def seede. fa tabaarakallaahu tabaarakallaahu ci wàll yépp nag. nee ci wàll yëpp nag. yàlla bu gémmiñ tàbb. yàlla bu ci gémmiñ tàbb. sëriñ bi yàlla yàlla guddal sa fan. yàlla yàlla sa fan. yàlla na la yàlla wéral. yàlla na la yàlla wéral. yàlla na la yàlla aar. yàlla la yàlla aar. yàlla na la yàlla musal. nee yàlla yàlla musal. lépp loo xam ni. nee lépp loo xam ni. misère la woon. misère la woon. mébét la woon. ci suñu kilifa gu baax googu. nee ci suñu kilifa gu baax googu. yal na nga mottali lépp. nee yal na la yàlla dimbali ba nga mottali lépp. ci kaw dund ak fekke ak tal ak sa sago. defal la ko ci kaw dund ak wér ak fekke ak sago. ci barke yonent bi sallallahu alayhi. defal ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi am nañ ci yaakaar. nee am nañ ci yaakaar. dañu xamoon cofeel bu wér bu dëggu bu la sa maam Abdou ëmbaloon. nee nee dafa xamoon cofeel bu wér bu dëggu boo xam ne sa maam Abdoul Aziz ëmbaloon na la yooyu yépp dafa demoon sax ba far fiir ci yow. dafa demoon ba far la di la fiire sax far. waaye loo ko wan la loo dund ak moom waaye yooyu yépp nag yaa ko ko wan yaa ko dund ak moom. te fa tabaarakallahu sa way jur fi desandi yal na leen fi yàlla déeg ba mu yàgg ñoom ñëpp loolu lañ la ëmbal. ne sa way jur yi fi desandi yal na leen fi yàlla déeg ba ñu yàgg fi lool waaye ñoom it loolu lañ la ëmbal. Serigne Abdoul Aziz Al Amin du dañ di ko seede di ko wax. ne Serigne Abdoul Aziz du dañ di ko seede di ko wax. ak rakkam yëpp ak yëpp. loolu na la yàlla dollee aar yal na kontaan nañu bu baax. nee kontaan nañu bu baax. yal na yàlla dëgëral mbooloo mi. yal na yàlla dëgëral mbooloo mi. yal na yàlla sàmm mbooloo mi. yal na yàlla sàmm mbooloo mi. yal na yàlla aar mbooloo mi. na yàlla aar mbooloo mi. ñu ngi nuyu bu baax a baax. ñu ngi nuyu bu a baax. honorable député honorable député soxna Awa Sow soxna Awa Sow di ko ziyaara di ko ziyaara bu baax di ko ndokkeel bu baax di ko ndokkeel bu baax fa tabaarakallaahu bi ci des mbokk yi ci des mbokk yi ci la ñuy tëje suñu kàddu doom te mooy ku fi ñëw. te mooy ku fi ñëw. ci barke Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour. barke Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour. aajo boo am. bépp aajo boo am. yàlla na la ko yàlla fajal. yàlla na la yàlla fajal aajo boo. su dee feebar yàlla na wér. bu dee feebar la yàlla na ko yàlla wéral. bu dee tiis wala njàqare yàlla na ko yàlla dàq. bu dee na ko bu dee bor yàlla na fay ko. bu dee bor la yàlla na ko yàlla fay. bu ko yàlla tas. bu dee yaakaar yooyu yaakaar yàlla bu ko yàlla tas. te incha taala. te ne incha taala. na ko góor sëriñ bi daan waxee. na ko sëriñ bi daan rek. na woon fa woon rek. na woon rek fa woon. aajo yëppay faju. aajo yëppay faju incha allah. waaw ñu ngi nii ñoom xaaj raw xaan. ñu ngi nii leen xaaj raw xaan Fall. di leen ziyaara di leen ziyaara. di bu baax baax fa tabaarakallah tabaarakallah. maa ngi nuyu Serigne Babacar sama Serigne Serigne Ba Serigne Mbaye si. nee mi ngi nuyu Serigne Mbaye si di Serigne am di sunu Serigne. di ko ziyaara bu baax di ko di la ziyaara itam. moom daal. mu ci gàttal ci gàttal. ñu ngi ndokkeel ñëpp ñu ñëpp. bàyyiwuñu kenn kenn. Euh, li secrétaire général bi doon wax sànq. li secrétaire général bi doon wax sànq. ci gërëm. ci gërëm. ci sant. sant. mbokk yi nga xam ne. mbokk yi nga xam ne. seen ñaan. seen ñaan. seen wërsëg. seen seen xalaat. seen xalaat. seen doole. seen dem na ci bés bi. dem na bi. yal na yàlla gis lépp. yal na yàlla gis lépp. duñu leen tuddaat duñu leen tuddaat gis-gisu yàlla gis-gisu yàlla mooy gis-gis bi am solo gis-gis bi am solo yàlla yàlla gis yàlla yàlla gis lépp yàlla nañu yàlla wuutu ci ñoom yàlla nañu yàlla wuutu ci ñoom fayal ñu leen fayal ñu leen ci barke yonent bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lale ko gudd fan lale ko gudd fan ak wér ak wér ak wérle ak ak mucc ak mucc waaw loolu moo doon kàddu yu loolu kàddu yu sëriñ bi ci Cheikh Oumar di ndokkeel. ñu ngi leen di ndokkeel bu baax. ak képp ku fi teew rek. moom daal piki nag li wër piki nag ñi fi teew ak fu waay mën a jóge ñëpp ngërëm yi ak cant bi jóge sëriñ bi jëm si bi ci des. bi ci des. dañ fi am ay gan. dañ fee am ay gan. di suñuy sëriñ. di suñuy sëriñ. di waa kër maam Cheikh El Hadj Omar. di waa kër maam Cheikh El Hadj Omar Fouti. rafet na nag. rafet na nag. jaadu na. jaadu na. war na. war na. ci suñu diggante. suñu diggante. ak ñoom. ak ñoom ndax mooy diggante. ndax mooy diggante. seen maam Cheikh Al Hadj maam Cheikh Al ak maam Cheikh Al Hadj Omar. may sàkku. muy sàkku nag. tàmbalee ko sama bopp tàmbalee ko ci boppam. ak ku mu doon ci ak ku mu doon ci ñi fi nekk ñëpp. ñu teral leen. ñu teral leen. jox leen seen jox leen seen hadiya maam. ci góor ñi. ci góor ñi. ak jigéen ak jigéen ma bëgg benn benn. mu bëgg benn benn ay jóg bala ñuy tasaaroo. wër rek. ñu wër rek laaj. sëriñ bi soog a ñaan. sëriñ bi door ñaan ñu door a julli ñu ngi koy sakku ci. ñu ngi koy sàkku ci mbooloo mi na am ñu jóg. laaj mu ñëw ñu jox ko ak lii yëpp. waa vraiment Cheikh Alhaji Omar Fouti radiyallahu anhu. jërëjëf jërëjëf. dañuy jox sëriñ bi mu ñaanal ñu yàlla. dañuy jox sëriñ bi mu ñaanal ñu yàlla. ndax bëgg ngeen ñaan gi nangu. ndax bëgg ngeen ñaan gi nangu. bëgg ngeen yi faju. bëgg ngeen gudd fan. ndax bëgg nañu gudd fan. bëgg ngeen wér. ndax bëgg nañu wér. bëgg ngeen xéewal. ndax bëgg nañu xéewal. ju ànd ak jàmm. ju ànd ak jàmm. ñëpp dinañ wax. loolu am na ba pare. nee loolu am na ba noppi. waaye signature bi. waaye signature bi nag. yàlla nee na mi ngi koy defee. yàlla nee na mi ngi koy defee. incha allah incha allah. ci barke Cheikh Sidi Mouhamed. ci barke Cheikh Sidi Mouhamed Mansour. dañuy ñaan. dañuy ñaan. tàmbalee ko ci jigéen ñi. tàmbalee ko ci jigéen ñi. ku nekk. ku nekk sa morom mi nga dendal. sa morom nga dendal. joxante leen loxo. joxante leen loxo. ngeen baaloon te ngeen góor ñi def loolu. góor ñi def sëriñ bi ñaan. mu nangu. mu nangu. yi faju. yi feebar yi wér. feebar yi wér. xéewal am. xéewal am jàmm am. jàmm am ba déwén jàmm. jërëjëf jërëjëf si sëñ bi jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. si si si. si ñu ngi waajal. incha allah bu soobee yàlla incha allah bu soobee yàlla. waaw ñu ñaan ñu ñaan suñu cheikh nee ñu ñaan. tàllal leen loxo yéen ñëpp. tàllal leen loxo yi. ñu ngi fi di mën a tooñ rek. ñu ngi fi di mën a tooñ. ñu tàllal loxo yi ñaan. bismillah dëgg la dëgg la. nee ñu dugal sëñ Cheikh nee ñu dugal ci aajo yëpp. nee di gën a dolli ñaan sëriñ bi. sëriñ bi sëriñ Cheikh ne xol yëpp sedd na. nee boo leen boo ñu xooloon demit lépp baax na. ñi ngi ñaan ci sa barke baay. sa barke. sa barke maam. sa bii. yal nañ ko toogaat téeméeri at. yal nañ ko toogaat téeméeri ne ak képp ku fi ñëw. bakkaar boo fi indi. yal na la ko yàlla faral. ne jàngoro bu fi waay indi. yal na ko yàlla faj. wala aajo bu fi nit indi rek. yal nañ ko yàlla boole fajal. nee ñu ànd ak yéene bu sell ci ndigalam ñu jàng faatiha jàng salaatul faatihi li ñu bëgg lépp yàlla nañ ko ci yàlla boole defal ñu jàng ñaan bi dugal ci aajo yépp nag te am pas-pas bu sell na sëriñ bi sëriñ bi lépp lu sosu lépp lu sosu ci ndigalu ci ndigalu Serigne Mouhamadou Serigne Mouhamadou Mansour. ku ca dem ku ca dem. mbaa nga wax mbaa nga wax ca mbaa nga def ca mbaa nga def ca mbaa nga fekke mbaa nga fekke sa affaire baax sa affaire baax da ngay texe ëllëg incha allah. waaw incha allah ñu jàng Fatiha salaatul Fatiha ci ndigal ñu dugal ci aajo yëpp yi mu wax yëpp incha allahu taala lépp yàlla nangu. amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin ba ma boole laa